Merci, bonne journée. I love you so much. <laughs> bonjour à tous ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci euh, ànd bi ak euh, télévision Futur Média hi how are you non rassure-toi t'étais pas en direct en direct comme ça mbokk ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak euh, télévision Futur Média hyper content de vous retrouver ce midi midi 3 mooy doog jot tey tombé na ak 22 juin xam ngeen ni démb moo nekkoon 21 juin fête de la musique alors tey 22 juin comme ñu leen ko diggee woon Viviane Chidid day dellu si ci plateau bi pour présenter nañu euh, li nga xamante ni moom lay doog a génnee tuddee ko par force voilà c'est vrai que single la bu soxor Euh, Viviane dafa sévère ci woyam bi euh, dafa ñëw nag euh, jóge vacance fas yéene fee jaar directement ci plateau bi pour ñu waxtaan donc seen i commentaires seen ay questions ñu ngi koy xaar ak hashtag bi di midi plus en attendant yéen a ngi préparer tabaski bi dund bi chair lool mais on est là pour vous accompagner numéro de téléphone yi dañu koy affiché ci suufu écran bi benn par benn ngeen composé di woote ñu leen di teral Viviane di leen bégal ñuy waxtaan ci li nga xamante ni moom lay doog a waxtaan itam ci ay projet est-ce que vous avez remarqué que Viviane bi mu jógee Olympia ba tey tooguñu wax pour def débrief donc loolu itam dina bokk euh, ci euh, sujet yi ñu fas yéene waxtaanee euh, bu ca tuuti fekk mu fekk si ñu ci plateau bi en attendant ñu ubbi téléphone yi xaar leen ci 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 20 20 wala 88 676. 07 ay ca ñan ñooy njëkk a woote euh, tey dañuy jël temps en attendant ren bi di ñëw c'est la reine de la musique africaine loolu la yàlla dogal bañ bañ bëgg pourtant moom li mu war a wax yëpp wax li mu war a wax yëpp woy na ko li mu war a wax yëpp woy na ko normalement dafa waroon bàyyi ay woyam rek lu ko waaye bëgg a laaj rek déglu ko ci ay woyam comme nag c'est la reine de la musique africaine euh, elle sera pour nous parler donc de ça par force <laughs> ndaanaan la ci char de combat la toog et puis jeu check affaire bi bopp la laaj yenn saa yi da ciy baax nga def show time ñoom artistes yi ego trip la ko tuddee en tout cas elle nous expliquera beaucoup de choses xam naa ni toppkatu kaa yëpp ngi jonkon ci seen télé yi di xaar ngeen bëggee kaa yéen <laughs> fi mu yàkkam ci ngeen Viviane yeeg si ba wax waa jonkoon leen toog leen xaar euh, bu leen neexee sax ngeen synchroniser kook yeneen télé yeeg site internet yi puisqu'elle sera avec nous euh, dans quelques instants mais en attendant dañuy euh, euh, xool fu ngeen toll ci woote yi pour ñu jox leen seeni i wàll ci enveloppe yi ñuy séddale pour li nga xamante ni moo jëm ci tabaski bi ah Mor Thiam Géwél wax na ko lu rëy nag moor itam dina ñëw tey ci plateau bi moor li mu wax Viviane rëy na xeetu rëy boo xamante ni damay ragal ñu romb ko rek dóor ko parce que actuellement dëmm yëpp a ngi jëfur man damay ragal ñu romb Mor xoj ko ba mu xoj def ko nii <laughs> parce que dëmm yaa ngi jëfur waaye sant en tout cas est ak euh, ci kanam tuuti et puis à propos de jamono bu naqari waxuma rek euh, ndugg yi ñuy ndugg pour euh, tabaski bi ñuy préparer mais li xar yi lekk sax dafa seer. ngooñ seer na ripaas seer na c'est-à-dire euh, euh, on a été euh, voir quelques personnes yoo xamante ni ñu ngi jaay ay xar mais fi mu toll bi ñoom sax dañoo jaaxle maanaam ñun ni ñu amee jafe-jafe pour am sobleeg pombiteer rek ni mu seeree ñoom noonu la ñuy amee problème ak li nga xamante ni moom la seen xar yi di dundee d'ailleurs ñu ngi may wax sax ni am na ay coggal xam ngeen coggal mooy xar yooyu def seen i délégation jógee Mali wala Guinée ñëw dakaar Euh, wala jógee ci ay dëkk yu nekk Sénégal yegg si dakaar donc coggal yooyu le euh, nee nañu commencé nañu rejoindre euh, Dakar et que tabaski daanaka une semaine moo ci des waaye njëgu mbir moomu le ma wax léegi nii ñoom ñoom. Euh, aliment de bétail euh, ñoom ñi yore xar yi nee nañu dafa cher euh, bëggoon naa ñu déglu ci tuuti Habib Faye parce que nag lu ay di jàmbat actuellement tout le monde parle de cette cherté de la vie mais en même temps de waajtaayu tabaski ak jafe-jafe yi nga xamante ne ñëpp a ngi koy am ci wàllu dund bu cher ñu déglu Habib Faye. day jafe ngir nga am la ngay xonte lii di jur gi fii ci stade Léopold Sédar Senghor war a sax ca CICES. ay espace la yoo xamante ni defar nañu ko ngir yeew foo lii di jur gi waaye la ëlëmu xeluk sàmm gi moo di njëgu ngooñ bu cher gi. essence bi moom ngooñ bi prix ngooñ bi dafay yéeg trop trop trop parce que ngooñ bi ñu ko doon jëndee ay 4000 4500 essence bi ñu ngi koy jëndee ba 6000 ba 6500. foo ko natt weesu na ko te li ci gën a garaaw mooy ngooñ bi nga xam ne tey dañ koy jël pour jox ko xare ñu lekk ko xare lañ dema bëggatuñ ko li ko waral mooy ngooñ bi baaxul. saako yi dañaa dañaa dañaa tuuti te ngooñ bi lépp dafa dafa moom dafay jaay xar waaye am na beneen pexe gu mu tëral ngir wàññi dépensam. laser bi ngay gis ne moom laa mujj euh, remplacer pour ngooñ parce que laser bi dinaa ci mën a dundal xar yi plus de dix jours parce que ma plus de cent têtes par rapport ak ngooñ bi moo gën a économique en plus tamit qualité bi moo gën a baax ngooñ fuuf sax. du donc ngooñ gi mooy li cher waaye yeneen yi tamit jéggi na dayoo ni ki mel ni ripaas gi. ripaas bee gën a métti sax parce que ripaas bi ñun dañoo tàmm di xonte ripaas Mali bi bi ñu ngi ko doon jëndee saaku onze mille douze mille et cent yi saaku bi muy toll ba seize mille. xont beeg ripaas bi moom ngooñ bee ñooyam rek parce que xont boo saaku boo doon jëndee ay sept mille huit mille léegi bu dikkee la treize mille onze mille donc y' problème. loolu yëpp doon na loo xamante nit dafay am njeexital ci njëgu jur gi. donte sax état bu Sénégal subventionné na njëg li lu doomu aadama bi di lekk presque loolu la xar bi di lekk parce que euh, boo seetee rakkal bi euh, dafa cher saag bi mu ngi jar ay dix mille francs euh, am na beneen grain de coton saag bi boobu moo gën a mën a duufal ñun éleveur professionnel bi yooyu sax lañu ñu gën a xont xar yi ñu duppee coggal ñu ngay commencé di ñëw fii ci Ndakaar ay fan des ca tabaski gi la leen jaaxal moo di ko xont gi nga xam ne saa su nekk njëg li day gën a jéggi dayoo. mu ngook Habib Faye ñu ngi lay gërëm bu baax moo ñu doon euh, euh, toppal euh, jaay katu xar yeeg ñoom seen parce que ñoom itam nee nañu li ñuy dundalee seen xar yi itam dafa seer donc finalement lépp seer tabaski arrive mais bon on vous aide quand même bu fekkee am na ay sunu xarit yu woote appelaay ñu jël leen par benn. Euh, dimbali leen ba ñu mën a am euh, xaru tabaski à temps euh, parce que actuellement waxuma jaaykatu xar yi kese mais jaaykatu soble ak pombiteer yi sax fi mu ne ñu ngi laam-laame tabaski bii ñuy waaj xam nga Sénégal moom dañoo mën bés da nga si gis sama classe gi dina am sax marchandise boo xamante ni day méngoog événement boobu boobule avant événement bi ñëw mënees nañ ko denc nag ba événement bi yegg si ñu yokk ko nga jàpp ne ci période événement bi la ñu ko jënd pour jaay ko fekk denc nañ ko bu yàgg <laughs> damier mënoo fi yàgg <laughs> li tubaab naan jeu d'échec ku mënul jouer jeu d'échec parce que affaire bi ci xel la donc yooyu yëpp euh, nit ñi dañu koy faral di imagine dund imaginez euh, Iparea saaku euh, soble bi daan bi daan bu 25 kilos bi daan jar bi daan jar 15000 léegi dégg naa 18000 mille lay jar voilà donc dañ ko daan nañ ko jaay 8000 astafurla 8000 8000 jërëjëf Ndeye Binta yow yàgg ngaa dem marché. donc saaku saaku soble bi daan jallu jar huit mille léegi ñu ngi koy jaayee entre quinze mille ak dix huit mille c'est c'est c'est trop hein donc agence de régulation des marché euh, tase na ak commerçant yi il pare ak yenn ci ay producteurs ci côté zone des Niayes boori Thiès euh, pour réguler marché bi loolu nag mu ngi jëm ci jafe-jafe yooyu ak spéculation yi nga xamante ni jaaykat yi euh, daanaka ñu ngi koy am Euh, ci euh, li nga xamante ni moo jëm ci waajtaayu tabaski bi euh, zone de Niayes bu ñu fa demee dañu fay fekk Cheikh Anta Diop mi ñu teewal ca Thiès. béykatu pombiteer yeeg soble yi bu zone des Niayes yi waa agence de régulation des marchés dikkoon fii ci diwaanu Thiès doon waxtaane naka la ñuy def ba njëg yi jëm ci wàllu sobleeg pombiteer du yokk ci jamonoy tabaski gi directeur exploitation ARM soble ak pombiteer am na fi. jëlaat nañ beneen mesure pour indi benn stock de régulation de sécurité à l'importation pour que véritablement stock bi bu ñëwee mu mën a accompagner li fi ne ba de sorte que Sénégalais yi mën a am stock bi euh, oignon bi ak pomme de terre bi dans les meilleures conditions. waaye nag ay jafe-jafe nemmeeku nañ ko ndaxte lu jëm ci wàllu soble bi commerçant yu bëri de dañ koo nëbb yokk njëg yi. beneen mbir mi tamit liggéey nañ ba def ay prix conseillers. parce que souvent tamit du ñu bëgg a euh, def ay prix fixe après di def répression daxante ki bi on fait de sorte que mu nekk concertation rek ku bay soble nga jaay ko 430 mooy 10 750 ci baykat bi prix bord maanaam bu ñëwee ci consommateur maximum mu bañ a weesu 12 500 13 000 kilo bi 600 francs mais gis nañ ne ñu ngi dépassé loolu. spéculation bi ñu ngi koy dépassé. góor gii di Modou Ndiaye béykatu pomme de terre ca Mboro. nee na njëg yi waa ARM wax ñu jaayee ko. ñoom de loolee la ñuy topp. muy 400 400 400 350 400. waaye kenn jëgaaniwu ko. te tey yaakaar naa ne seer na mais adduna bi moo doxee noonu. yi nga xam ne ñoo daan jox pomme de terre tey problème bi am la ñu am. gis ni pomme terre bi wax dëgg yàlla mu ngi dem loolu à grâce direction horticulture ARM. ministre de agriculture bi ñu wax sac de vingt cinq la bi ñu ngi koy jaayee dix mille cinq cent onze mille prix bi gën a cher. Ah non ARM prix bi mu fixé fan la jëlee boobu conseil ba fixé ko mais loolu ñun duñ ko topp producteur bi toppuñu ko ñun mënuñu ko topp. ñu gis ne ci marché central bu a daanaka njëgu soble bi yéeg na lool bu ñu jëlee saako soble bu ñaar fukki kilo ak juróom dañ ko daan jaayee junni ak juróom benn téeméer tey jii de dem na ci ñetti junni voilà donc mu ngoog euh, loolu mooy spéculation yi nga xamante ni am na euh, ci diggante commerçant yeeg euh, baykatu pombiteer yeeg soble ñoom nag jot nañu tase ak ñi nga xamee ni ñoo yore régulation des marché ci daje boo xamante ni ñoo ngi ko amaloon ca boori zone des Niayes foofu ca Thiès ñu ngi ci gërëm bu baax Cheikh Anta Diop ak Seylatir ñoom ñoo ñu teewal foofu ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ay ca ban wala yan téléspectateur ñooy njëkk a dugg bu yeboo ngeen gaawantu euh, puisque ci kanam tuuti Endo euh, laay recevoir waykat bu mag bi <laughs> Viviane Chidid euh, ci kanam tuuti dinañu fekk si bu ko defee ñu tàmbali waxtaan bi donc elle va venir nous présenter single bu bees bi et puis ñu ñu ñu def bilan ci fi jot a jàll yëpp ci kanam tuuti lay doon ak waykat bu mag bi moom sax am na challenge boo xamante ni fans yi ak sénégalais yi la ko jagleel xam naa ci kanam tuuti euh, dinaa leen ko euh, présenter donc regardez enveloppe yaa ngi nii mën naa maye soixante quinze mille mën naa maye cent mille mën naa maye deux cent mille mën naa maye trois cent mille am na nu muy demee sax bu indo yegsee moom it xam nga chaque année mu maye ay xar <laughs> te wax ja bëriwul daaw camion xar la jëlee Mali di ko séddale maa taxawoon euh, maa taxawoon te tam ba ca fa ñuy jaayee xar fii ci Grand Yoff ren itam da koy defaat donc am na nu muy demee su ma leen mayee ci xaalisu TFM moom it mu teg ci ci xaalisam pour xaar wala lu ngeen dimbali ko ci euh, tabaski bi donc on vous attend euh, benn par benn ci 88 628 22 22 wala 88 628 cinq 05 yéen rek lay xaar numéro téléphone yaa ngi noonu di affiché wu ci euh, suufu écran bi ku woote ba dugg ñu jox la sa wàll ci lii ñuy

bu dee da ngeen di composé muy saturé mën ngeen raccroché composé waat beneen ci numéro de téléphone yi parce que numéro yi bëri na c'est plus de yoo xamante ni tegal nañu leen ko pour ku dugg rek ñu jox ko yëfam 88 628 22 22 wala 88 628 20 20 allo allo allo. allo. kooku kan la. man la ay maam Binta. yow la maam Binta. maam Binta Gueye waaw. maam Binta ci loo maa ngi nii rek. fan ngay wootee maam Binta. comico wakaam. naka waa cité comico. nu ngeen def ak tàngaay bi. tàng na de. yéen a ngi préparé tabaski bi. waaw ñu ngi koy préparé naan. maam Binta naka maam Binta. Gueye. maam Binta Bey. Gueye Gueye. ah maam Binta Gueye d'accord maam maam Binta Gueye euh, dama lay teel a libéré déjà maam Binta sa numéro bokk na ci numéro yi nga xamante ni mën nañu leen may xaru tabaski bankal sa baaraam. waaw merci léegi dama lay yónnee léegi nii ci calpe bi nga yore sa téléphone enveloppe bu tollu ci soixante quinze mille. waaw merci soixante quinze mille baax na de xanaa. baax na kay baax soixante quinze mille mooy mooy fukki junneeg juróom. waa fukki junneeg juróom baax na mën nga cee mën nga cee tabaski. wallaay ba noppi itam mën nañu laa may xar ah. sa numéro ngi ci numéro yi t'inquiète d'accord. waaw léegi ne quitte ma yónnee la ko léegi nii ci sa ci sa portable. maa ngi lay yónnee euh, bul bul de. waaw. bul léegi nii ma yónnee la sa yëf. Mm-hmm. ne quitte je t'envoie léegi nii soixante quinze mille. yooyo yolaan yoloon yolaan Ndiaye depuis RTS yoloon maa ngi lay fóon bu baax ñoom ñoo ma yar. Euh, fële ca télévision nationale Yolande Ndiaye Mariam Samba Yaxam Thiam Yolande que j'embrasse très fort ñu ngi lay bëggee bu baax yooyu yo borom chaîne inter waaw wala RSI rajo Sénégal international voilà donc 75000 moom la ñu yónnee maam defe naa maam Binta la de ah mais de façon jot na xaalis bi ci téléphone am ay ci nañu accélérer cadence bi ku dugg ñu jox ko yëfam. allez on accélère on accélère on accélère on accélère on accélère on accélère <laughs> ah bu nañu accélérer cadence bi on accélère on accélère on accélère on accélère on accélère <laughs> il faut que ñu accélérer parce que du ma am temps bu endo yegsee léegi duma tal kenn du ma tal ay téléphone du ma tal ay maye xaalis en tout cas c'est le moment ou jamais ngeen profiter euh, ci enveloppe yi ñuy séddale ci euh, numéro de téléphone yi nga xamante ni ñooy affiché wu ci suufu écran bi dëkk bi nag tàng na lool sax da ngay xëy doo sax bëgg sol yére il fait tellement chaud mais bon c'est normal Euh, démb la woon 21 juin donc forcément été bi moom dugg na parce que euh, selon euh, calcul yi d'habitude chaque 21 juin mooy date bi nga xamante ni moom la ñu jàpp ni mooy début été voilà donc dugg nañu été été dafay ànd ànd ak ak tàngaay dem plage voilà dem plage def maillot de bain loolu dara dàq ko voilà dem plage di gain sax jar na 14 milliards waxatuma la ak dem plage sangu tellement il fait donc faites-vous plaisir ci euh, période bile nga xamante ni vacances yi daanaka tàmbali na euh, pour xale yi midi 18 ay ca accélère accélère Abdoulaye temps du am indo ngi waaj a ñëw bu indo yegg see du am jot kenn on accélère on accélère vi vi ngi ñëw vi vi ngi ñëw <laughs> vi ngi ñëw ngi ñëw vi vi ngi ñëw vi vi ngi ñëw <laughs> bajal de Abdoulaye Abou lu déglu Ndeye Binta de bul déglu Ndeye Binta meeru mbootaay la xamul lu xew ci bi xamul lu xew ci mbedd bu ko déglu meeru mbootaay la léegi mu ne la tegal ko photo Mimi bu bul def yooyu yëpp yooyu yëpp bu ci dugg xam naa ko maire la xamul internet xamul TikTok xamul lu xew bàyyi ko foofu rek indoo ngi ñëw indoo ngi ñëw indoo ngi ñëw indoo ngi ñëw <laughs> non non Inde dama yàkkamti mu yegg si fi mu ne yi ma bëgg a wax Viviane yëpp sama làmmiñ bee xasan billaahi wallaahi moom daa génn wayam bu soxor ba pare dem léegi nag démb ñu wax téléphone mu ne ma tey ci fajar laa yegg si Dakar kan laa nekkoon dama doon vacances ana xew xam nga dafa neex na ma waa Pape waa Pape lu xew Viviane moo neex waa lu xew ma ne ko yow ñëwal rek li xew dama la ko waxee sa kër ti télé bi laa la koy waxee devant tout les oreilles et les yeux mu ne ma maa ngi ñëw léegi nii donc bu ñëwee poudral leen mu ko parce que moom bu naturel gaañ bu defaroo gaañ moo tax mu ne leen nangul ma ko par force la voilà yenn saa yi baax na nga indi show time loolu ego trip la ñu ko tuddee on en parle tout à l'heure donc vivi ngi ñëw ay waay vivi ngi ñëw yesaay vivi ngi ñëw <laughs> vivi ngi ñëw donc on est obligé d'accélérer la cadence euh, pour yéen ñi nga xamante ni yéen ay woote pour ñu jox leen seen ay euh, xaru euh, tabaski allez indoo ngi ñëw de eh mu ne vieux Diouf mais vieux ren ñu Màkka TFM yóbbu yóbbu nañu yóbbu nañu ay nit ren wala yóbbuwuñu dañ daan yóbbu de man de ah wala yóbbuwuñu temps yi télé bi dañoo mel ni ñu banque yóbbuwuñu ren oh yàlla baax na TFM ñun xam naa cat moo ñu topp rek <laughs> tele bu ñu catoo ngi nii lu ne ñu dugal ñu ci rek am TFM indil TFM coowal politique ñu ne TFM coowal mœurs TFM. coowal wuyu TFM coowal bandi TFM coowal musique TFM man télé bee am bayri bu kii quoi c'est c'est incroyable ah allez indo ngi ñëw indo ngi ñëw <laughs> fi mu ne ñëppay xaar indo <laughs> soo yaay mi daan grâce matinée sax moom tey daa teel a yeewu naa ma allo waaye yeggagoo seen émission bi kañ lay commencé dina commencé léegi nii mais en attendant damay maye xaalis euh, ak xaar balaa Endo di yegsi man Endo rek laay xaar ndax moom rek laay topp bu yegsee léegi nii ñu waxtaan et puis ñu détaillé quoi daa traité cas yi cas yi moom il faut ñu traité ko tey Endo dafa soxor <laughs> mais est xam ngeen ni li mu waroon wax yëpp woy na ko par exemple teeyal. bokk na ci way yi nga xamante ni euh, dafa dafa dafa méngoo ak jamono j'aimerais qu'on sa ci ndimbalu équipe yi ci ginnaaw Apulaay et tout le monde euh, bu ko defee euh, ñu mën a ñu mën a bégee quoi mais damay ziar bu baax ay fan su Viviane ngërëm gi ak cant gi dama koy teg ci loxo Abdoulaye Ba Abdoulaye Ba su ma ko ko joxee moom dina ko mën a séddale après li ci des ma jox ko fa Vivi bu Zik FM bu ko defee moom itam bu demee ci rajo bi rajo ñoom Safia bi mu euh, euh, séddaleel ma ngërëm gi fan su Viviane yëpp kulim juum mais gars yëpp maa ngi leen di béggee indoo ngi ñëw de barki yonent bi indoo ngi ñëw indoo ngi ñëw ewa indoo ngi ñëw indoo ngi ñëw indoo ngi ñëw donc le temps indo di ñëw euh, apu may ñu teeyal parce que lii itam woy wi lii sama xarit bi naan uq la wooy wi téere la de dem ba gisee sax nangu na ni wooy wi téere la donc nañ ko déglu donc dellu siwaat ci plateau bi parce que Endo ngi ñëw Endo ngi ñëw à li mu waroon wax yëpp way na ko wallaay wallaay déglu leen waxi yaaram ba mën waaxu xam yoon wee ko gën xamu leen sax ku ko wax sëñ Fall ko waxoon mën waaxu xam yoon bee ko gën lii mooy teeyal ak Endo donc en attendant Endo di yegg si euh, ñu continuer jël leen 88 628 22 22 88 demb Guissé nga ni ku Viviane di waxal yow comme yéen ku way ngeen wutal ko cible yow moom lay waxal <laughs> def ko lu paata loo xam ne te lii lii laa wax yàkkamti rayoon na sa ñoom maam dégg na rayoon na sa maam. wax loo xam ne amagul. teyal xamuloo do xaar ba ñu xamal leen. ah gisuloo do xaar ba gis lu gën a leer nga dem. te na nga tey te nga. allez qui sera le prochain téléspectateur ñu jël leen jox leen seen i enveloppe dañu koy séddale ba ci kanam ci 88 628 20 20 wala 88 628 22 22 allez. nañu ko benn bennal rek enveloppe yaa ngi noonu joxe gum naa defe naa 75000 la ah. donc desaat na yeneen enveloppe Euh, abu fan nga may yóbbu ci indo ma xool indo mu woy tam dafa bëri de man bi ma juddoo te màgget laa fekkee naa Houphouët Boigny fekkee naa Senghor maanaam damaa bejaaw kaw béjjaaw suuf te ba ma juddoo ba tey maa ngi koy dégg muy woy moom Viviane je te jure ah <laughs> bi ma juddoo ba tey yéen ngi fàttaliku yow yaay sama sama lébété on était mu dëkk ay camp Abdou yooyu noonu koñu ñoom ma Diouf ak ay Safia xam nga nekk tout tout tànk te léegi pas tànk la et ba léegi mu ngi ñuy bégal elle est tellement intemporelle euh, naa leen yóbbu léegi nii ci live boo xamee ni euh, mu ngi ko amaloon euh, fii ci boori King Fat Palace donc on va on va écouter ça pour ñu bégal leen allez allez neexal mu koy dund tout le temps mu mel nii yow Clara danga ko koy delloo tey dëgg la mais neexul ba neexul waaye way wi Clara da cee dal de Clara mu mu Doro dooro gay dooro gay Gaye Doro Gaye PDG euh, Clara très adorable moom itam bokk na euh, ci euh, gars yi nga xamante ni dañu bëgg lool dañu bëgg indo voilà donc Clara ñu ngi koy béggee bu baax moom ak borom këram ay nit yu baax yu bëri valeur ñu ngi leen di ñu ngi leen di ziar Yaama ma madame Bey moom itam suma siste la Euh, ñu ngi koy ziar bu baax di ko euh, bégal euh, di nuyu tamit waa Kër Omar Cheveux yëpp place ba ñu ngi toog di seetaan Awa gay fii ci télévision Futur Média la nekk mais xam ngeen ni moom tamit dafay bégee Viviane fu mu toll donc Awa Gaye ñu ngi koy bégee bu baax yaayu Cheikh Ibrahim di ci bégal itam Karo Diop Karo bu Idrissa Diop moom itam dafa bëgg Viviane ba nuroog moom naar Lydia ñu ngi koy béggee bu baax Caba Diagne madame le maire euh, yow itam ñu ngi lay ziar on te souhaite une très bonne journée ayta ñu accélérer continuer ak yéen ci euh, euh, téléphone yi 88 628 eh mais maam Fama maa ngi lay gërëmaa ah, jot naa ci mbuusu beñe dugub bi kontaan naa de maam Fama fii la nekk journaliste la mu ngi ci igfm point sn et c'est mon amour tey dafa xëy yóbbante ma mbuusu beñe dugub voilà mooy coppati par ndànk rek ay beñe yu duuf sax ah waaw xam naa benn grand dina bëgg ma may ko ci benn grand moom la xale yi tuddee tonton Pape te da cee am ñoo xamante ni ñoo ko makkat waaye buñ ko rombee tonton Pape lañ koy wax beñe dugub baa ngi nii daal xam naa dama koy yeew nii rek ba ca kanam def ci boole koo café Touba maam faama waay maam faama yaay nit yaay nit ku baax waay ayca na euh, appel yi dugg gaaw ñu euh, seddale su Baro Chéri Dior maa ngi lay béggee bu baax ak euh, Maguette Maguette maa ngi lay ziar bu baax noo Maguette bu mu du fay laa wax <laughs> Pape Lam daa foogoon ni moom laay tudd que jabar ji Maguette sama rakk la sama xarit la sama jigéen la mais su ma nee Maguette rek Pape Lam tëb foog ni jabar laay waxal non Maguette bu Modou Faye laa wax voilà Modou Faye Mousli Couture <laughs> non Maguette yaayu Mohamed euh, maa ngi koy béggee euh, kor Pape Euh, Alima Alima maa ngi lay béggee bu baax ah Alima coppet Alima lu tax bu tuddee teg ci turam bi coppet alors moom coppet coppetul moom dafa dijj <laughs> Alima ba su ma dabaan waa Kakatar euh, nu ñuy def ba Alima mun a ba chaise bi Alima di toog mën a tenir pendant toute l'émission loolu xaw na maa jaaxal de xaw ma ndax dañ koo créer euh, siisu acier xaw ma parce que TFM dañoo bari pexe waaw Bouba Ndour dafa bari pexe. <laughs> man je pense que Alima war na am chaise spéciale parce que durant toute l'émission Alima toog siis bi yooxuwul jooyul Alima toog rek di wax kon TFM créé na ko siis spéciale loolu moom naa ci gëstu naa ci enquête mais Alima ñu ngi lay béggee bu baax Oumy Ndiaye London moom itam très fidèle euh, ñu ngi koy ziar euh, di ci nuyu tamit euh, Ajaratu Kiné Ndiaye mu eh, El Hadj eh, madame jigo ca dëkk bu ñu naan Gambie ñu ngi koy bégee bu baax ayca na woote yi gaaw 88 628 22 22 wala 88 628 20 20 en attendant Endo di yegg si ñu tàmbali waxtaan bi aéroport lay jóge directement xam naa ci embouteillage lay nekk pour yegg si eh, bu ko defee ñu waxtaan ci lii muy doog a génne. dañuy dinañu ñëw nag ci ay points yu bëri euh, ak moom woykat bi indo laa ko tuddee indo ngi ñëw loolu dafa neex loolu loolu loolu final indo ngi ñëw indo ngi ñëw indo <laughs> ngi ñëw indo ngi ñëw vi vi ngi ñëw vi vi ngi ñëw en tout cas on l'attend 88 628 20 20 allo allo kooku Cheikh Fall Cheikh Pape eh waay wuy loolu. waaw ah, moom dëpp Cheikh Pape yow la kan. man la Cheikh Fall. ah d' accord man Cheikh Pape nga wax d' accord Cheikh Fall. Hmm. Cheikh Fall yow foo dëkk. Kébémer. fan ci Kébémer nga dëkkee Cheikh Fall. Escale. d' naka waa foofu. waa fii mi ngi nii de. Kébémer a ngi tàng. waaw mi ngi tàng mi sedd daal. eh de Dakar de ngi mel ni safara. bul wax loolu waaye. xam naa suñu xol yu bon yi la yàlla di la yàlla di ñu di ñu di ñu fayee ay naaj yu tàng nii fi mu ne boo jëlee omelette toj ko teg ko ci tali bi sax xaw ma nen dafay ñor. c'est incroyable Cheikh Fall mais Kébémer a ngi neex daal quand même. waaw yow déjà sa numéro téléphone naa la ci yónnee naa la ci naa naa la boole ci numéro yi nga xamante ni dañu koy tirage pour jox leen xaru tabaski loolu benn la. déggal bi ci topp eh waay Cheikh mi ngi wéy la ne déggal loolu <laughs> réew <laughs> léegi bi ci topp mooy seex dama lay yónnee soixante quinze mille ci sa téléphone léegi nii. waaw da nga waroon wax déggaatal loolu kon yow déggoo. non loolu neex daa neex <laughs> ah, raw na neex soixante quinze mille léegi nii. ci tàng tàng xaar teg ci leneen. loolu final la mënu cee teg leneen nag loolu rek laa mën tey soixante quinze mille kese <laughs> mënu leneen leneen xanaa tegal la Endo mu waxtaan ak yow nga kontaan. nga duufal say affaire la yaa yaa ngi xaar Endo. Ah, bu weex sax. ngi ñëw de. indoo ngi ñëw moos. kenn du moom tata vivi vivi. ii vivi tata vivi et waaye moom li mu mujjee génne dafa soxor de. non vivi beneen affaire la. ak soxor bu iñaan la bu soxor sax <laughs> léegi Cheikh maa ngi lay yónnee nii vérifier sa téléphone ndax jot nga euh, ndax jot nga soixante quinze mille yi d' accord. maa ngi ko léegi nii nga xool muy soixante quinze mille. ci sa téléphone portable ay ca Abdoulaye gaaw leen bu indo yegsee du ma tal kenn du tal sax Youssou Ndour lu leer laa la wax de <laughs> xam naa indo bu ibbee télé damay bàyyi rek damay bàyyi rek faf dem ci télém comme ibbeegul télé nag naa toog fii rek noonu la as gor far te man xas naa ba far et j'assume mes responsabilités de far voilà donc euh, bu amee téléspectateur euh, ñu jëlaat ko euh, bu ko defee ku dugg rek mën a kontaan Euh, ci enveloppe yi nga xamante ni ñoo ngi koy séddale euh, depuis déjà ñaata depuis mercredi passé pourtant depuis une semaine la ñu ko tàmbali euh, ba léegi dañuy àggali di joxe di ndokkeel nag waa M3D Kër Linguère xam nga nag Mamy Diop bu télévision Futur Média styliste la moom yamul rek ci bëri wax bu toogee ci télé bi lu mu wax du ci jaaraat mais da caa boole ubbi boutique boo xamante ni ay secret de femme la fay jaayee waaye est-ce que xam ngeen ni lépp sol moo koy ñaw moom Mamy te temps yi dafa def collection collection tabaski. waaw dafa def collection tabaski démb rek sol na sol na sol na robe bu rafet ba gaa yëpp di ma ko laaj mami li mu sol bu ngeen bëggee nag ci yére yi nga xamante ni mami Linguère moom lay sol ak collection tabaski bi mën ngeen ko woo ci 77 369 15 15 77 369 quinze 15 mami nag ñu ngi lay xaar mode tabaski xam nga moo tabaski ren Eva Tra moo koy présenté mu ngi ci làkk ay français rek nous vous donnerons <laughs> ko euh, làkkal wolof <laughs> ñuy invité ay sénégalais lañu lakkal wolof <laughs> Awa Traoré Awa chaque jour ma ne ko del taxaw mais Awa du taxaw de préféré toog rek te man damaa bëgg Awa taxaw mais espérons que buy def mode tabaski dina taxaw gis nga bu Awa taxawee di ngeen xam ni jongomon jongom jongomantul Awa jongom <laughs> Awa jongomantewul eh merci Débinta <laughs> Awa jongomantewul imaam borom këram tam doful ah, waaw imaam doful de Eva Tra di ngeen ànd ak moom ci kanam tuuti su ma jeexalee waxtaan week Endo Endo ngi ñëw nag ñu ngi koy xaar ñu euh, jël leen ci euh, téléphone yi euh, vingt 88 628 22 22 wala 88 628 20 20 am na itam numéro yu commencé 88 676. voilà 88 676 05 05 88 676 06 06 loolu itam ay numéro yu baax la di euh, béggee bu baax euh, Baye xalifa Dem moom suma sëriñ la ba pare mais nit ku baax la voilà ak alxalif traiteur yëpp xam yenn saa yi mën na ma ay plat yu neex li ma ñu démb ab célibataire bu doy waar la sama kër livre yi dañuy jaabante rek ku yéeg wàcc yéeg wàcc yéeg wàcc yéeg lu ma neex commandé donc ñu ngi béggee bu baax Baye xalifa Dem 88 628 20 20 ñu continuer di leen jël euh, ci kanam tuuti daañu ànd ak soxna Naata moo ñu na a présenté euh, journal wolof bi dans quelques instants ce sera pour tout à l'heure mais ñu ngi euh, continuer di leen xaar Kuti Fall mais Kuti Fall maa ngi lay béggee di Kuti ndeysaan Kuti nuyul ma kooku kooku nga nekkal noonu nuyul ma ko yow looloo lay dal tout le temps saa yoo amee ku mel noonu rek il faut que mu may topp donc Ndella euh, yaay Mouhamed ñu ngi koy bëggee bu baax ah uuf sa télé toog di xaar indo ay ca gaaw leen maa ngi leen di xaar 88 628 22 22 wala 88 628 20 20 Alice Sambou je t'embrasse très fort Alice sama Alice Alice bu Viviane Alice bu maître Khadija Ali Kane Alice bu Mam Sire Konaté suñu groupe donc Alice maa ngi lay béggee bu baax ñoo àndoon France ñu àndoon ak Endo àndoon ak moom Olympia ci hôtel bu neex ba donc Alice je t'embrasse très fort allez ban téléspectateur mooy gaat léegi nii comme Cheikh Fall ma yónnee ko léegi ci kalpeem moo xam kalpe bu ngeen mën ti am ci seen téléphone ah kalpe orange money par exemple bu ngeen ko amee ci saa euh, laa leen ko yónnee euh, juste vous rappeler que ñu ngi ànd nag ak canal xam ngeen ni actuellement canal euh, dafa commencé daanaka mbir mu am solo boo xamante ni festival de cadeau la ko tuddee alors festival de cadeau bi bu ngeen jëndee bu ngeen jëndee décodeur même bu fekkee formule bu 5000 bi la dañ leen di may installation bi ak parabole bi donc formule yi bëri na quoi am na tout canal euh, mooy bu quarante mille bi am na bu 15 000 am na bu 5 000 mais même bu ngeen jëlee formule bu 5 bi da ngeen di bokk ci festival cadeau euh, bu canal alors dañ leen di jox euh, dañ leen di koy installeel te du ngeen fay dara ba noppitam jox leen parabol Euh, loolu nag dafay dem fi ba trente 31 juillet donc mun ngeen cee profité et puis bu ngeen defaatee seen réabonnement yéen ñi am euh, parabole ak décodeur et tout ça ba pare di ngeen mën a gagné ay euh, ay teraanga yoo xamante ni Canal Plus moo ko teg pour bégal leen ci tabaski bi bokk na ci ay bazin teg ci itam ay chèque cadeau yoo xamante ni mu ngi toll ci deux cent mille nga xam ne di ngeen mën a dem ci benn grande surface pour ndugg fa ndugg valeur bu toll ci deux cent mille donc mun ngeen dem mat def seen ay réabonnement ngeen abonné wu Euh, pour mën a quand bokk euh, ci teraanga yi nga xamante ni canal euh, moo leen ko jagleel. Aïcha 88 628 22 22 yéen rek lay xaar Apulaay xoolal ma taatu waxande bi mën nga ma fa loxatil ay woy Viviane yu yàgg. ñu mën ci ñu mën ci bég en attendant soxna naata di ñëw parmi woyam yu yàgg yi man am na bu ma neexoon defe naa fii lañ ko defee woon fi ah, fii nii TFM ah fi TFM nekk léegi ci régi bi fi régie bi nekk voilà merci Apulaay bii mooy commune to me bii nag def naa ci lu ne ci rajo bi def naa ci luy dund def ci luy dee luy doy bu doon doy doy bu yàgg luy doy bu doon doy doy bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg way boo xamante ni ça nous rappelle beaucoup de nañ ko déglu doo ko dellu siwaat ci plateau bi en attendant indo di yegg si Mor Thiam Géwel mat nga idole mat nga référence Mor Thiam Géwel mbaa xam ngeen ni Mor ñëw na Mor ñëw na de mais indo la ñuy xaar indo ngi ñëw ana indo dégg naa yegg na indo ngi ñëw voilà indo ngi ñëw eh indo ngi ñëw indo ngi ñëw indo eh, garaaw indo ngi kan la nekkoon wàcc aéroport wuy si doomam ji ci tele bi wallaay mu noon nga ni da ngaa sonn da noppalu ba pare ba fi lekk ay fan ngay doog a ñëw xam naa ne fi mu ne Sénégal yëpp jonkoon nañ ci seeni i télé di xaar bu leen neexee sax ngeen synchroniser mun nañ leen may signal bi doomam jaa ngi noonu moom la àndal yaa bëgg sa yaay zee keroog bi ngeen demee Makka image bi daw yaram mooy bi nga xëccee loxo bi rek teg ko ci kaaba gi loolu daf maa fàttali taawu xale moo yaay ji yàlla na nga laal kaaba ga nga jiital sa yaay indoo ngi noonu di yegg si elle va nous rejoindre ci euh, plateau bi faatu Camara maa ngi lay bëggee bu baax journaliste gambienne bu mag bi euh, jigéenu Alioune Sarr ak bu jaañ policeman ca Gambie ñoom ñëpp ñu ngi leen di béggee ak fu ngeen mënti nekk tey dinañu waxtaan ci lu bëri ak euh, Viviane Chidid single bee soxor moom bi muy clip sax bañ na ko ba ci char de combat toog xamoon na ni bu coowee coow li bëri bu coowul coow li bëri donc mu ngi euh, yegsi ci plateau bi dans quelques instants bu yegsee rek ngeen installé ko. ñu mën a nag euh, tàmbali waxtaan bi apu tegaaleel ma par force ma parforce defe naa yegg si na c'est bon ay laa xëy la la délégation indo indo <laughs> ngi ñëw indo ngi ñëw indo eh, ngi ñëw indo ngi ñëw wala boog indo <laughs> how are you da nga xam wala da ngay laaj li yàlla ci man oh là Endo bienvenue how are you <laughs> oh yeah mais de soo mënul jàngal soo xamul laaj ma. nga ni ma wala nan la. <laughs> soo bëggee ma dimbali la def la ndaanaan. kaay ma tànkal la du jeex ni géeju ndaayaan. alors thème bi par force la moom la ñuy waaj a développer dans quelques instants ci euh, midi plus bi ci euh, télévision Futur Média mais ni nga ni nga def nii man man man jaaxle naa de. waaw Pape fair play rek. <laughs> fair li Mor wax léegi naan fair play. selplay rek xam nga. waaw méttiwul daal. mais bind bi baax na de. dégg nga. mais moor dafa garaawa. Ah. dégg nga bind bi baax na dégg nga. daf ko nangu rek daf ma ko nangul. <laughs> ah moom Mor nangu na. nangu na ñàkk nangu euh, nee na teel a nangu de noppali duma. <laughs> alors fi mu ne yéen ñëpp pare ngeen ñun pare nañu euh, pour tàmbali waxtaan bi ak euh, Indo mooy reine musique sénégalaise mooy reine musique africaine. Euh, man nag toll naa ci moom foo xam ni xam naa ci kanam sax mun naa génn bàyyi ñeneen ñëw toog wax ak moom ndax su ma waxee mbëggee lay wax te xol laay waxee xas naa ba xas naa xas naa ba nekk victime rek <laughs> xas man man ngiroo naa rek man dee naa ci moom rek maanaam sama deret léegi Viviane na ci ne mooy daw nii te xam nga sama yaay sax dafa fair play sama papa fair play samay mbokk fair play alors bu fekkee da ngeen bëgg a bokk ci waxtaan bi ñu ngi leen di xaar hashtag bi euh, midi la ñu fas yéene koo tàmbali juste après journal bi pour ñu toog xaar. <laughs>